Ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone gannaaw yof dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior ndaw ñi dinañ ko boole ak jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le demee nag billaahi di sant suma sëriñ Mama Samba borom Gadji waaw di sant paaleen bi yëpp di si waaw di bëggee waa gàcci Fall waaw di bëggee waa ngin gi neew teg si waaw ak waa mbake bu baax a baax a baax loolu yóbbu ngin gi waaw mais ma Samba borom gàcci foofu la nekkee ye maanaam man fu mu nekk ma fekk ko fa ndax resul nga fekk ko ngàcc mu bañ la koo ngàcc waaw ñu bëri nag dañ koo umbale mais après la ko gars yi di xam da ngeen dugg si dugg si ak dal quoi yee lamb ji moo laaj loolu ñun dañu am conseiller te ay xale lañ nekk si lamb yee ay mag conseil loolu ñu ñu wax loolu la ñuy jëfee nekk nekk ñu xale si làmb quoi. dañ ko xamee woon ambiance yëngal yaa yee ambiance bi day ñëw dañuy ambiance ba mu neex ndax supporters yi ñoom loolu lañ bëgg amateurs yi loolu lañ bëgg mais suñ dugusee dañuy dal après lu war lu war la ñu ñëw def ko waaw. mais Siteu ak nga yaakaar loolu Siteu war a bëri sa waay. li ma la wax Papa Sow fu mu nekk dañ ko fay fekk ñun ay xale lañ ñu ñoo war a jël si liñu ñu moom ñun ñaanuñu. déggoo li ma la wax ñun ñaanuñu soxlawul ñu ñu may dañuy ñëw couper suñu victoire dem ñibbi jàmm gën waaw yelmin bi moo fi ne lépp lay lijjanti. xam nga li yelmin. ay déggoo li ma la doo dee yelmin jeexal na wax ji lépp lay gérer waaw lépp lu ñëw mën na ko gérer. tout cas du du yomb de. waaw ñun soxlawul lu yomb. caata caat bëgg caat yow da ngaa ñëw rek non xam nga rek bis bee ko laaj quoi tekk rek tekk di ñu won yoon. barke sëñ Bamba waaw noonu la demee nag ndax. bis yomb de quoi non ah lu yomb daa baax. c'est que combat bi li ci bëri li ci laxasu moo bëri. waaw dafay yàgg quoi. yee di wax nag Papa Sow lu mu waaj doyul dégg naa ko mu naan zéro pression lay préparé combat bi. tey nag lay tàmbalee pressionné ba ilal abat. est-ce que mën nañu ko teg pression yéen. kat ñun ah. si kanam tuuti dina leer incha allah ah. Papa Sow lu mu ci bañul. ñun bugguñu ko ci sax ñun. bu laal. Eh. laala ci café gi. waaw xam nga man Baye Fall maa lay bëggee. maa ngi delloo ziar ci loone maa ngi sant bu baax kay. la famille Tarkinda. waaw waaw gis nga de. ñëw ngeen de. la demee ñëw nañ en masse. waaw parcelle la nga fee maa la wax lii. dañ koy ñàdd de. Siteu ak ak Papa ah? naka ngeen war a waajalee. ñëwuñu pour bu rek moom dañoo ñëw pour daan ko ñibbi. Papa Sow. tamit est-ce que mën nga ñëw rek taxañ ko noonu tamit. ñëwuñu pour bëreeg moom li may wax dafa am fu ma ko teg. xanaa da ngeen koy lem ba pare. Boucar dafa am fu ñu bëgg a dem te du Papa saw moo ñuy téye. bu mag la de. baax na. est du jot ngeen jox ko cër respect. an ci yàlla yóbboo ak jàmm. tournel nii ma dem si ma si sawaay. eh yàlla mbin. yàlla naa la. bëgg naa si loo ne. waaye mieux nga ñëw rek ko gar xib xaber cool waaw heɗaro yaal ndam sereer fof a siktam an dam dam gidma sereer fof nu ana leya sereer mi gidnam jom war fane limema andun bo fayago anda me combat ne warnga bis ken do bom bu sereer an siktam buka bama bu sereer an siktam birma ko de waaw i ken do bon lom nga sereer fof fana siktam nu ana leya sereer oyo sereer a ƴufa tookof siktam combat ne ga'inga o waaj mais retro sen quoi retro france retro sen to ko jegoogu combat waaj non sante fane fo ɓay men je staff te mofnoram i ƴa bo fandi koy mi jala mi toog mais heɗa ndam waaw parce que oye ten ten combat ne doole wara xal i ngeexɗano rek ma fita woxu pun mi pun toog kon xar xar waraamo waa jala ka mais a refanga i mbir maak mais i mbir xar refum i mbir xar refum wona waaɗa wona waaɗida tookum quoi nu ka de waana waramo waax kupum nu ka i njirne ten a jaɓna i njere sa jaɓa ka xumna ka bukar ken leya te refanga seereer fana sitam i gidma jongwar gidma ñojoor gidma fayla gidma ndunale fop bo a munde ɓasul leya kel fayes fene siktam yaya i mi simnan dafa dellu cosaan si combat bi dafa mel ni maanaam na lum lum lum ci ndam a sereer leya foore naxa toor i a sereer leya bu sereer a sitam ke buma te ref a sereer a njendam i kon kon mbi kon xaadata yaam a jega wa layoog na a laye a considérant comme boy town mais daal xaadame genona non mosaam mo moso xaad mosimo ret sen xaƴa kay ro yaal natuyo am mike mais o sereer mos ka ref wo yang xun ka i tant que supporter ke waaw kontaan rek di bëggee ñëpp di sant ñëpp di woo ñëpp di wax leen ne ñëpp ñëw parce que maam Serap Fall. yaa ne boo nee woon la yoon combat bi da nga ñëw andi tekk. waaw ku ne rambax rek pajax. acca Mohamed noonu la demee dégg nga Siteu. Malaysia Malaysia. waa salaamaaleykum. jaar naa la. ci loo si jàmm bu nan nga ñëwee. jaar naa la. ko jël mu làkk séeréer tey li ma ko jël yëpp séeréer la wax séeréer la wax. daa mel ni gars yi yor rek kaa ñu wiiri ne daam jaar naa la. mais nu mu demee nii. Mouhamed yi waxuñu de. bàyyi ma jël Ibulaay ba xam ndax Ibulaay dina wax xaaral ma jël Ibulaay. borom borom pro oto PDG ziar naa PDG ziar naa PDG naa PDG bu ma def noonu ah Mahamed gars yi waxuñu de ñoom balakan bi waaye gars yi waxuñu de xaw ma nu mu demee noonu. ayca Gora Sock ziar naa la ziar naa la. Eh, Boucar namu naa la gaañ. si loolu nag nga gisee. naka ngeen waajee. waaw comme ñu doon waajee tout temps rek. di ñaan yàlla Papa Sow yàlla may ko si la war a waaw Siteu moo ngi bëri yëpp a yem Papa Sow bëri mbëri gën a dansé Siteu yoon Papa Sow jamono bi bëri ay Modou Lo ay Tonnerre ay Zos ñoo gën a dansé booy bi mais est-ce que tamit amul lu fi lu fi lu fi lu fi génn si diggante wàññi doole bi wàññi ko ak yu demee comme li ma leen wax tout le temps yéen journaliste yëpp lamb amul magante lamb xam nga job mbër boo dégg ñaan guddi ndaw ji guddeem nekk dafa liggéey liggéey mooy maye ndam borom nag mën ngay liggéey pare du la may moom mooy maye mais liggéey dëgg-dëgg mooy ma ndam te Papa ngi ci liggéey bi. Siteu nag nee na ma dafa ne ci yoon te du Papa Sow koy ti dafa nekk ci. ci yoon te dafa am ci lu mu jógee. yoon la nekk. bëgg bëgg dara rek. ah bëgg nekk dara ci làmb ji moom xam ci yoon la nekk. dafa Papa Sow ci bi la nekk. xam nga ci yoon la nekk. ci yoon la jaani dox rek. Papa Sow ci autoroute à la nekk. mais bi du ëppee si Papa Sow. pression bi. Papa Sow ba ma dee pression ci làmb kon moom. war na xoolaat boppam. benn écurie bu bees nekk njiit ngeen ñëw bootu ci ginnaawam am ay waxi ginnaaw yu demee noonu. écurie bi yàlla mi ñuy dimbali mu ubbee ñi nga may ndam ah ñu ñaan yàlla na kon ne. moom mi nekk njiit. moom mi nekk njiit yàlla ko suñu borom may ndam te incha allah dina am ndam te baal ba la suur si incha allah bu ñu ci eggee. ma tey si journal benn coach boxing bu wax ne euh, Papa Sow dafa waroon a wàññi poids parce que ne mu ne Papa Sow dafa waroon a wàññi poids parce que nee na Siteu jarul waaw ñoom ay professionnel xam nga lu mu wax mënoo ko weddi quoi mais li li li ma bëgg a xam daal mooy Poisson lépp lu muy def ay coach sooma ngi ci ginnaaw loto sukaa ngi fi latoo ngi fi Balla Diouf a ngi fi Père Serigne Ndiaye ngi fi ah coach jaboo ngi fi kon moom lamb moom jëru gars yi dañuy wax ay lii lay wala nangam yàlla suñu borom may talak fekkee te mbëri ñu bëri nag lu tax nga lu nga yow ngay taamu yow man taamu ma dama war a bëre mag sancee ñoo war a bëre dégg naa da ngay taamu kan laay taamu dégg naa da ngay a bëre ak yow bëgg a man amul booy bu bëgg a man de mag ñi mag ñi laa bëgg a bëreel. a bëreel bëgg ñëw booy bu bëgg a bëreeg man. li ma benn booy bëgg a bëreeg man. koo koo bëgg a bëreel. man Sa Thiès laa bëgg a bëreel. kan. bu Sa Thiès jàllee ma ñaan ba booy sens. kan. bu jàllee ba sës ba sës. xanaa Moussa Ndoye tam xam nga ne Moussa Ndoye moom xam ko teg coono. loolu combat la. waa combat la mais bëgguma ko teg coono. bëgguma ko teg coono ndax moom. lu nga koy teg coono. non. Moussa Ndoye di bëreekat xanaa gisoo lim Sa <coughs> maa ngi koy encouragé di ko di wax lamb noon la di firndeel avance Thiès non maa ngi koy encouragé di félicité ni mu bëri saa xam ne lamb noon la daan ak daanoo am mais ki ko daan laa bëgg jox ma ko fi mu bëree ak moom su ma eggan nga xam ne mbër day am ndoxtu waaye man ne ma eggee moom ma eggee moom nga xam ne mbër day am ndoxtu waaw ndoxtu maa ngi lay bëgg ok merci ah, waa kër le naka mu maa ngi nii rek le grand berger. waa grand berger waaw waaw. fier maa ngi sant bu fu fu toll. waa xar yi waaw ñu ngi ci. ñëw. waa gaa yaa ngi ñëw ñu ngi laajte. TV xanaa bu ñëwee dinañ am xar ba. waa Lutte TV ñoom rek laay xaar bu ñu ñëwee xam naa ne moom xar yi gën a mag waa Lutte TV ñoo koy jënd waaw. mais naka ngeen ñëwee. waa tey ñëw nañ ci calme ànd ak sunuy rakk conseiller leen xamal leen ni face à face du lamb nañ ñëw serein ànd ak kalm respecté sunu bopp respecté ñi ñuy fekk si et vraiment gis nañu face à face yi fi jàll yëpp am violence et vraiment ñun dañu contre loolu et bokk ci ñuy xeex loolu kon tey bu ñu ñëwee ànd ak suñuy rak dañ leen di conseiller tàggat leen ba pare gunga leen wax leen nu ñu war a toogee tey boo xoolee booy ñi ngi ñëw calme nañ lool vraiment ñi ngi nice voilà léegi nag loolu la ñuy gérer rek bañ na ko ba sax supporter dañ leen ne vraiment mun nañ toog kër ga parce que ñun lépp li nga xam ne da ngay indi violence dañ koy éviter mbëri ay professionnel lañu mun nañ waxante xas mu yem ci ñoom ñaari yam ci géew ba mais ñi ci ci seen yoon nekku ci du dog ñun nag ñi ci biti duñ leen ci boole ñi ci biir ñi nga xam ne ñooy ñi ci biir muy Papa Sow ak Siteu ñoo ko seq ñi ànd ak Siteu encadré Siteu ñu ànd ak Papa Sow encadré Papa Sow bés bi à la daawme ñu respecté amateurs yi respecté monde làmb ba ñu bàyyi lu xew rek ñu ne violence tey lii nag défi la boo xam ne ñu def face à face ba mu jeex te du am violence loolu la ñuy souhaité. jàmbaaru Warees Lig nekk une écurie novice nga nga bokk si Papa am fu mu jógee ngeen jógee ak mer mu ñëw war a nekk au est-ce que pression boobu tey du ko jàpp. ñun instant yi amuñu benn pression parce que ñu ngi liggéey liggéey bu baax. booy ñu ngi dans les très bonnes conditions donc ñun amuñu pression amuñu stress benn benn pression rek la am mooy yàkkamti bés bi pression wu yàkkamti bés bi la am parce que papa bu gën a wane boppam bien vrai que champion lay bëreel muy Siteu di xale bu làmb soxla am avenir mais papa dañ ko yónni yàkkamti ko muy écrit bu bees bi tey moom mu jiite ko nekk ci bopp bi tey ñu liggéey liggéey bu mucc ayib war a ànd ak moom ànd bu mucc ayib ñaanal ko yàlla nag yàlla may ko ndam parce que yàlla rek ay may ndam mais lépp li nga xam ne rek dinañ ko waaj at mbër dinañ ko ngembee mbër ëmbee ko mbër pour yóbbu ko ci làmb dinañ ko waaj pare ko incha allah. waa ñu ne la à ah? ne à suivre. à suivre. <laughs> mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone gannaaw yof fa dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior ndaw ñi dinañ ko boole ak jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu